bu ñu demoon élection luy am yàllaa ko xam nit xamu ko bu élection amoon ndax dina neex ndax dina naqadi nit xamu ko yàllaa ko xam on n'a pas l'expérience du possible liñ ñu mën a def mooy xalaat mooy yaakaar mooy développer ay hypothèses hypothèses yooyu nag lu ñuy wax ci lay tegu mooy ñu teg une méthode de scénario ne scénario bi bu lii amee lii lañ mën a def bu lële amee lële lañ mën a def mais lu nit teg te mu ne du jaas fokk mu am loolu yàlla rek a ko xam yàlla rek a mënoon a xam ne te ren ji vingt cinq février du ñu am élection yàlla rek a ko xam keneen xamu ko keneen xamu ko keneen mënu koo xam ndax dinañu am atum ren deux mille vingt quatre dinañ am élection am déet sabab rek la ci la ci nit mën a am la succession des événements ak lii am yàllaa ko xam ku bakkanam rot ak ku bakkanam du rot yàllaa ko xam yàlla yàlla na leen yàlla yërëm def nañ fete nañ fi jàmm juróomi nit dee juróomi nit dee ci kontaan ci bëgg fete jàmm mooy ñu gagné coupe d'Af d'Afrique des Nations juróomi nit dee ci donc bakkan buy dem yàlla la lii xew yàlla la nit xamu ko man xamuma ko. alors donc ñiy wax lu leen leer nañu wax lu leen leer man waxuma lu ma leer dama ni rek. lu ne mën naa am waaye réew dafa bokk ci lu ñuy lu nga xam ne dafa bokk ci réew surtout ci état toujours ñuy def euh, ñuy def gestion de crise ñuy calculer risque ba noppi ñuy def toujours un plan ci bokk na ci plan yi lu noo woowee plan de continuité d'activité bu dee activité la lu noo woowee communication de crise bu dee crise dafa war a am. mais dafa bokk ci état. mais prévoir muy natt sauf que lu war a ñëw. sauf que Souleymane ba ngay wax boobu le processus était déjà engagé li taxoon sax gaa yëpp yuuxu sa kaw. le processus électoral le processus. déedéet était déjà engagé. déedéet le processus n'est jamais déjà engagé. processus élection ñu ngi koy commencé ba élection ba ba wees jeexee ba beneen di ñëw. ñu ngi woon atum daaw début atum daaw le processus. bi commencé non ñu woon. man bi may wax man bi may njëkk a wax. bi may njëkk a wax nee nañu xalaat ci mbirum élection yi est-ce que dina mën a nekk booba mois de juin la booba tànnaguñu sax candidat.